ayca su kaa bay daal ni tey thème du jour bi dara lu euh, góor ñi nga xam ne dañuy nekk seen soxna si biir kër gi dafa am jigéen ñoo xam ne bu ñuy say su kaa dañuy àndaale seen rakk wala seen cousine wala sax ñu jël benn xale ñu may leen ko juste pour ñu leen di dimbale ci liggéeyu kër gi góor ñoo nga xam ne dañuy jël seen bët teg ko ci xale boobu tey nga xam moo ñëw ci kër pour dimbale soxnaam nañ dem seetaan élément bu ñëwee ñu daal ci kaa rek. Ah, loolu de léegi bari na xale yu jigéen ñi bu ñuy liggéey di sol yenn yi mun nañoo provoquer ñu góor ñi wala des fois nga jël sa jëkkër sàgganee ko ba beneen jigéen ñëw nekk ci biir kër gi nangu ko say loxo bu ko defee ngay tëb dal fekk or lépp yow yaa ko waral lépp ci yow la ci yow la waaw man man jigéen buy sëy je préfère ngay togg di yàq di gérer sa jëkkër mais tey jii ñu ci bari la plupart bu ñuy sëy néeg bi ñu tëdd sax xale bi ñu moo leen koy defaral seen jëkkër boo lekk xale bi mooy teg añ bi donc am na góor ñoo nga xamante ne bu ñu gisee loo xam ne loolu la dañuy dem ci kooku ni góor góor la rek yow yaa ko fi andi sa jëkkër profet ko noonu ah ah nga xool noo leen koy gérer rek lu ndayu nga doon xale bu ndaw di sëy ci kër di andi xale bu la jàppale ci kër lu ndayu bon sax pourquoi pas yow mënoo gérer sa appartement bu par exemple soxna si dafa sonn ci kër gi ba tax mu indi ku ko wàllu euh, j'espère que kii na ak ak borom këram waxtaane na ko ak borom këram li ci des ngor moo koy mottali mu xam ne kii kat dafa ñëw ci ci mission bi pour jàppale couple bi euh, jigéen dafa mun seetlu bu selloo ni ki mu fi àndi yamul wala mi ngi def lu ci bokkul foofu moom war na mun a waxtaan ak borom këram mu jël une décision ferme bu dee góor góor la comme niñ koy waxee góor góor la non man d'accord ma ci loolu góor da war a am euh, limite rafetul mais tamit ñu xoolaat comportement xale bu jigéen bi ñëw ci kër gi tamit surtout ama góor moom góor rek la sa ja soxna moom ku mu fa mën a indi loolu moom da a séexlu ni ñuy provoqué si lu mu mën a a la jox da ko war a jox soxna si war na xoolaat bu baax surtout ki ngay indi comportement bi tout cas Mbaye euh, mu nekk lu am solo euh, dama naan rek ana lan moo ko fi jar ndax nag bu dee jigéen jigéen ñu bëri nañ fi te ki nga xam ne sa soxna moo ko indi si kër gi kooku bu ñëwee euh, pour dimbale soxna si mooy pour dimbale ménage bi jëm kanam dama naan lan moo tax xale góor yi du ma ne xale góor yi sax lan moo tax ñenn si si ñi ma ko sañ a wax mënuñ maîtriser seen bopp parce que dafa am ñoo xam ne su kaambay dañoo sensible si jigéen am na nooy waxeek moom jox ko yenn affection yi wala nga sol lu gàtt rek romb leen seen xel day nekk ci yow mu nekk loo xam ne du góor ñëpp nag am na góor yoo xam ne góor tigi lañ boo doon summee na ma yàlla ngeen baal ma si kàddu ki ba mel na la suñu nan nañ la bindee woon sax na la sa yaa jure woon duñ la xool parce que dafa am góor ñoo xam ne dañuy dañuy ah koy tigi koo koy tigi waaw hmm. góor tigi am na yoo xam ne day siixlu maanaam sa xaritu sa xaritu jabar sa rakku jabar sa mbokku jabar wala sa jabar sax kiy fréquente si moom boo dee góor dëgg rek war nga mën a maîtriser sa bopp ba doo mën a bëgg a sekkam yenn yi am na yenn wax yoo xam ne sax doo ko sekkam moom am na góor dañu naan dañoo ñàkk kersa dañoo am caractère mais déedéet dafa am lu ñuy bañ parce que am na jigéen ñoo xam ne su kaa may boo leen mayee benn ñu jël fukk am na lu waa ji wax léegi mooy xale yi nga xam ne ñu leen di ci kër gi nañ leen xoolaat parce que dafa am ñoo xam ne Euh, euh, da nga leen di gis seen kanam nga foog ne dañoo timide wala am na yenn kerte yoo xam ne dox na mu ngi mu ngi si ñoom alors que bu ñu wéeteeg sa jëkkër ni ñuy ni ñuy defanteeg ñoom wala ni ñu koy ni ñu koy jéem a tàppaase yow bu ñu la ko waxeen sax yow muy jigéen bi doo ko gëm moo tax lépp lu jigéen di def wala képp ku jigéen di andi si këram na ko xoolaat te jigéen dafa fiir waaye itam jigéen dafa war a am seetlu su kaambay parce que bu fekkee yow da ngay liggéey di wàcc boo demee xale bu jigéen mooy togg mooy bale li ndaw si wax léegi mooy defar sa néeg am affection bu ndaw ak sa borom kër wala pour mu jege sa sa borom kër dafa yomb parce que bu wàccee moom mooy ki koy tàngalal mooy ki koy tàngalal taajal añ bu bu wàcc bu wàccee ndox mu sedd ba sa jëkkër di naan sax moom moo koy jox kooku pour mu am yenn yi ci sa jëkkër dafa yomb man dama naan pourquoi pas yow ku jigéen ki nga jéem a euh, def benn benn effort bu ndaw mooy boo xëyee sa lal bi ngay tëdd am na jigéen ñoo xam ne euh, jànku du leen defaral seen néeg sa lal bi ngay tëdd avant ngaa xëy xanaa nag doo xëy 5 heures doo xëy 6 heures avant ngaa xëy di nga bale sa néeg defar sa néeg ba ba ba yow euh, ndaw si nga xam ne moo lay defaral sa kër du fa am accès parce que loolu c'est privé sa néeg ak sa borom kër c'est privé waroo bàyyi benn xale di fa dugg beneen bi mooy euh, boo wàccee am na yenn yoo xam ne euh, ku jigéen ki moo koy def mais bu ko ko may maanaam taaji reer yeeg jaagar jaagar jigéen amul lu dul salañ salañam yow salañ salañ googu boo ko jëlee jox ko moom moom ko boo sa borom kër bu nekkee góor goo xam ne dafa oyof torop mën na am yenn affection yi ci ndaw si waaye itam ba tey dama naan ak lu mu mënti mënti doon ak lu mu mënti mënti doon dañ naan góor góor rek la man d'accorduma loolu ak lu mu mënti doon war nga séexlu war nga xool ci sa jabar ndax jabar nag nawle na nawle la te ki bàyyi ñëpp bàyyi kër ndeyam bàyyi kër baayam xoolal fi mu juddoo ba ni mu màggee mu abandonné ñooñu ñëw nekk ak yow kon kooku su sutura sukaambay da nga ko war a jox cër cëru soxna da ko war a respecté am na ñoo xam ne su kaa même bu fekkee dañuy doxaan sax dañuy sa doxaan koñ bi seen euh, soxna dëkk ndax lan parce que jox nañ cër seen soxna am na respect buy daw seen diggante bugguñ buggul kenn yàpp ki nga xam moom du soxnaam te yow boo yabloo sa soxna sa bopp nga yablu parce que la ñuy wax ci sa soxna ci yow lañ koy jiitalee mënuñ wax diw te duñu wax jëkkëram mooy kii kon lépp lu waaye mën a def rek na jiital respect parce que bu fekkee da ngaa respecté sa soxna am na yoo xam ne di nga ko jomba def nit ki mu nekk loo xam ne su kaa mbay euh, góor ñu koy def euh, euh, du ne <laughs> bëri na mais boo ko kiiyee tamit xaw na kii de xaw na bëri tuuti de wala ah. Hmm, xawul bëri. waaw <laughs> ah, seetlu dañ ko temps de. <laughs> nga nga xamoo dafa am benn kilifa bu doon wax wax bu am solo mu ne ñaar moom ñàkkewuma ko fayda. Hmm. maye maye jabar maye doom. maanaam may la jabar ba pare jël rakkam boole ca mu ne moom ñàkk faydaam moom eggul foofu waaw xam na euh, mag ñi bu nu waxee dara am na lu ñuy sóor pour ëllëg waaw mën na doon ab topp mais topp ka ngay topp bu miinee mu war nga mën a yow dëpp ñibbiwaat loolu lépp bu doon am maanaam li ñuy débat fi yëpp du doon débat parce que kii doog a sëyi xatul xat wala jaboot gu mu jaboot te kooku bu dee ni mokk na moom boppam la war a wane moom mais warul wane talent keneen bu dee mën na togg ci moom lañ koy xaar. Mm-hmm. bu dee neex na deret ci moom lañ koy xaar maanaam lépp ci say xaaruñu ko ci ku mu indi ci moom lañ koy xaar ngeen baal ma mm-hmm. kooku loolu lu jar a bàyyi xel la. beneen bi ci topp mooy li ñeel oh. beneen bi ci <laughs> mooy li ñeel. ak ku góor ki danga ne seexlu waa ku war a seexlu la nag waaw ku war a seexlu la te war na xam li mu moom ak lu mu moomul rawatina koo xam ne rakk la wala mag ci soxnaam maanaam ak lu xelam gàtt gàtt gàtt ak fu mu mën a dem war na fa mën a bàyyi ñooñu parce que parce que fii moom loo foqale foqale wala loo ñambale ñambale moom di nga fi bàyyi boo moomul. kon yooyu yi nga fi war a bàyyi la daf ci am loo ne moom moo ko waroo ko laal danga ko war a exclure sa vie parce que nit ki lépp ci xelam la mais daf ci am loo xam ne boo ko deful sa xel du mën a nekk. waaye daf ci am ñoo xam ne aussi tamit présence bi ñuy teew ci kanamu góor ñi la ñuy yëkkati moo bari dafa am benn góor gu doon wax naan meetu leen di yëkkati sidditu góor ñi. mun a parce que góor bu sidditam jugee xel mi du fa nekkati ñu indil la xale boo xam aussi xamul fu muy yem te kenn yamalewu ko. mu daje góor goo xam ne tamit dañu doon kilifa parce que tam jiite yor ay soxna ak doon kilifa parce que gi nga baatu kilifa baat la bu yomb ci wax mais kilifa comportement la. kilifa day doxee ci mooy tax muy seexlu moo tax muy am li muy bañ moo tax muy am li muy jomb même bu dee sax seexlu mais jomb jomb baatu jomb jomb boobu nag daf ñoo xaw a manqué jomb boo dee ba nit bu ci eggee rek kooku mën nañ ko bañ a dégg wala ñu koy gis ci yenn yi parce que danaan lii parce que li nga ragal boo gisu ki nga ragal di nga ko def. mais li nga jomb mhm. même boo wéetee yow dong mhm. ak lu xale bi mënta mel di nga ne lii jombale naa ko sama bopp mais man ci li ma àndul mooy maye doom joxe doom pour man yow lañu maye demal sëy sa sëy nekk ci li nga ne mais aussi te nga mat sa jëkkër seytaane mhm. mat ko mbubb mat ko sër waa mais aussi am na ci ñoo xam ne mënoonu ut mais mënuñu téye ci xale yi jigéen yi maanaam mënuñu ut mais munuñu téye alors ko góor daa am lu war ci moom ki lay bëccëgal di la gontul di la fanaanal lépp ngir sa jëmm ji kooku bu ñëwee pour man keneen warul mun a jël sa place ba moom muy ànd ak moom ci yenn wala muy dugg ak moom ci yenn mais man ci li mu àndul rek foofu laay dellu pour éviter yi xew yépp mhm. mooy may naa la jabar duma jël rakam di la jox. macha allah kàddu yi rafet na Alaaji Sarr xam nga di gën a classique mooy. ma ñëw ne way góor dafa nekk nit koo xam ni eh, am na yoo xam ni kenn waru koo def dafa ñaaw loolu mooy li classe quoi maanaam mooy li ñëpp war a wax maanaam ci plateau buñ ci toogee loolu mooy li ñu wax mais lool réglé wul problème parce que problème dafa am problème ban moo am maanaam am na ku wàcc li mu war a def maanaam ku jigéen ki est-ce que li muy def mu ngi koy def ba tax bunt boobu di ubbeeku c'est que boo bëggee faj mbir mi dañuy wax d'abord na jigéen ñi di def li ñu war a def man de wax dëgg fa yàlla sama jabara may tàngalal may lekk moo may bale moo may jox may lekk su ma ñëwee ci kër gi maay programme am ba ba may dem kon donc mënuma fi nekk naan maa ngi xool keew ak maa ngi xool këlëg maa ngi xool kee parce que mi ngi def li mu war a maanaam boo bàyyee place bu vide la nature est di du maanaam boo bàyyee vide yow yaa commencé ubbi benn bunt boo xam ni yenn yi dina am yenn yooyu di am nag par yenn saay am na xale yoo xamante ni bi tey mën ngeen nekk seen mbokk ak mën na nekk seen kiiw ak affaire yooyu mën nañu am nu ñu mel par contre am na xale yoo xam ne meluñu tamit nenn ni am na yoo xamante ni bii duñu dugg ci terrain yenn yi mais fi muy am il faut que mu am bunt bu ubbee ko ba pare pour lii xew soog a mën a xew parce que Omar koy wax sànq naan góor bu si di tam taxawee doot xel mi dootul lool parce que am na yu bari yoo xam da ngay gis da ngay dégg ñu ne la góor def na ko mais danga naan lii nu mu mën a nekkee. et pourtant kooku rek boo ko arriéraatoon tuuti moom teg ko ci plateau dalay toog ne la lëf ju ñaaw ji lu ko nit mën a defee kon bi mu koy def mooy kan parfois loolu mooy li nga xamante ni e, mooy liy am ci diggante góor ñi ak jigéen ñi li am solo mooy jigéen ñi bu ñuy sëy xam nga dafa am gi yoo xamante ni bi pareen saay tamit nga gis góor ñoo xam ne dañuy takk jabar di ñëw di tee seen ki ci topp naan sama ginnaaw toola ngi di ko teg kii dafa am yoo xam ne su na ko su na ko sunu borom teree waroo ko jéem a def ay di kotteeg sama ginnaaw tool booy chéri fóon di def yenn yi loolu day dem te prensaay da ngay gis ndaw sa daf fay nekk di ree mel ni comme si rien n'était maanaam euh, ki nga xam ni kii moom la du xale bi topp waaw comprendre nga te loolu nga xamante ni bi xale bi mu nga da ngay jékki-jékki yeneen commencé am yoo xamante ni bi yow léegi yow bu dee yaa ngi toog foofu rek maanaam jigéen li kat ma wax sànq ne jigéen danga war a fiir xaw ma yow la xaw ma mais am na yoo xamante ni bi da nga war a teg ay barrage yow tamit parce que da ngay xam ni góor ñi boo leen ubbilee yenn bunt yi xajal seen xel yi day commencé di daw di ne ci leneen mm-hmm. mais nag am na porte yoo xamante ni bi tey boo ko tëjee am na yu bari yoo xamante ni parrain saay mën na bañ a am mais nag yooyu dafa laaj tamit sawar parce que mais bu dee da ngaa nekk jigéen ju tayel boo toogee defaralal kii lii defalal kii lii indil ko lii defal ko lee comprendre nga léegi yow finalement la nga waroon a def yëpp kii koy def ba noppi léeg-léeg sax am na coo xam ne fa la ñuy nekk nekk ca whatsapp ya nekk ca groupe ya di commentaire boo nekkee ci groupe ya rek ñi groupo o bu boobaa musiba daal di am donc il faut que daal ñu xam ni waaw ñu xam ni waa ji bi mu jógee di takki demul <laughs> waa bi mu jógee di takki dafa dem tànni ki mu bëgg ca kër ga du woon topp bala tànn indi ko ci kër gi yaa ngi dégg donc kii la takk moom la indi moom la bëgg waaye kii nag bi mu ñëwee bu defut li mu war a def la mu war a def léegi mu bàyyi topp ba di ko def bu boobaa nag topp boobu waa ji topp ko. gaay ne dañoo juum de. eh c'est pas ne dañoo juum de. gaay yi fois ñu gis topp bi ne dañoo juum de. day dañ koy def daal daal bu ma la teeloon bu ma ko teeloon gis kii laay jël de bu ko defee nga nekk fa di ree fekk eh, loolu mu la wax ma ca bopp ba waaw parce que am na lu mu gis ba tax mu wax lool lu mag di café rek dëggam la allahu akbar bi <laughs> am na solo waaye nag eh, eh, saa wax na ko léegi maanaam eh, Omar la xaw ma saa wax na ko maanaam góor bu sidditam jógee rek xel ma day dal di dem waaw loolu noonu loolu noonu maanaam bu sidditam jógee yow yow mi nga xam ne yow yaay bu jigéen ki nekkoo yoroo waa maanaam yow mi nga <laughs> <laughs> déedéet man du ko bàyyi ak borom si yi xam nga lan moo tax euh, barkaati démb rek man mi daf ma arrivé benn kilifa seet si ma seet si ma de maanaam am am yu ma proposé maanaam proposé comme li ñuy wax rek mën naa mën naa la def mën naa def li mën naa def laa lii laa lii laa bëgg maanaam ma am na ma ne ko gis nga boo dul woon kilifa bu ma la xamul woon bu ma la rusul woon bu ma la bañul woon a kii ci biir nit ñi ci koñ bi laa lay kii waaw mu tiit na maa ngi jéggalu maa ngi jéggalu tey day romb sama sama koñ démb rek na ma non maa ngi jéggalu gis nga li ñu naan góor bu kiiwam jógee si ditam jógee rek day nekk dof mu ne ñun góor ñi dañoo kon quoi ñun góor ñi dañoo kon que man mënuma gis jigéen bu mel ni yow maanaam nga teg sa taabal fii di jaay daan sa doole di di dundee sa ngor man ma ñëw di la di la jéem a teg lu ñàkk fayda boo doon dund lu ñàkk fayda amaana du ma la fekk ci mbedd bi day tool tolaan yi maanaam di jaay di wut loo dunde ak loo teralee sa sa njaboot maanaam man non maanaam maanaam maanaam maanaam maanaam non non xaaral xaaral non xaaral Euh, maanaam noo xaaral maanaam maanaam góor bu sidditam jógee hmm. ka mu nekkal mën naa teralaat su siddit boobu ci ay kàddoom hmm. bu fekkente ne am nga fulla hmm. bu fekkente ne xam nga yow yaay kan kooku sidditam lu mu jóg jóg jóg jóg am na noo waxe ak moom wax ak moom waxu nit dina xam ne fi muus du fi naanee ñeex parce que ñàkk fayda mënul weesu sa sœur say si ci kër nga ànd ak moom maanaam yow yaa war a protéger sa sœur ci yu mel noonu tey su ma àndeek sama mag euh, maanaam am kuy jéem a mbaraan borom këram mais man maay jóg fippul ko ne ko yow la lii ak li ak lii man may jël place am taxaw mais yow moomu boo ñàkkee fayda ba góor gi nga xam ne moom mooy wéet ak sa sœur di am ak sa ci yow di la di la tegi loxo di la tàpp nga sol tubéy mu naan la sa tubéy dang na baax na nangam nangam yooyu boo ngay bàyyi muy jàll di jàll mais bu yàggee moom mooy jékki-jékki nga dugg ci kii rek mu ne la ciix téye moo koy jëndal waaw parce que parce que lu tax mooy yow am na ah. loo ko may ci ay kàddu muy jàll di jàll bu bu lay tàpp wala muy def leneen su boobaa yow dootu amati wax parce que da nga ko may ba mu ne xam li naan ci bunt bi laa yem ak ci boor bi laa yem da ngay jékki-jékki rek mu dugg ci biir lu tax parce que yow yaa ko may balaa caag na nga def barrage maanaam buy wax ay waxam benn kàddu ñaari kàddu defal sa bolokaas bi nga xam ne. la mu bëgg a wax man dama xamul lan la fay la muy def fan. man la mën nga vacances si gane si wala yooyu mais ñëw dëkk bi pour lan. non topp topp mooy topp nit rek. mën na yàgg mën na bañ a. topp dañ ko def pour ndaw si biir fu muy waxtaan balaa pour na ñuy ah, na ñoo xam ne dañuy dëkk. am na ñoo xam ne dëkk boobu nag. Ah? Ah? jigéen ñi daal nañu amaat fula ci seen bopp mm-hmm. bàyyi góor bu ñëw mën a jaar ci seen mayen. Mm-hmm. mën a jaar ci seen i maanaam seen ruq yi nañu bàyyi ku nekk ñu ubbil la sa ruq. ak ku mën di gis nga li saa wax rek mu ni mm-hmm. nit du kii nit du tayal gis nga jigéen boo tayee rek ñu ñu jël ci say garde ñu dem ci sa garde li nga am kus néew soit mu doon deux jours wala mu doon quatre jours wala mu doon euh, consacré consacré ko sa jëkkër ndax sa jëkkër tey su ñëwee nga ne jànk bi eh indi lii indi lii indi lii indi lii bu yàggee loolu day soof yow sa jëkkër yaa ko war a toggal sa parce que dina dem sa loxo bii da ko war a tàmmal sa borom kër ba bu demee fen dootul xamante li muy lekk boo ko tàmmalee bu demee fen bu lekkee danaan ki diw euh, du ko mën kon donc sa loxo lay tàmm bu paree bu dee attaay ji ba la. dibi Tamba dégg naa na loolu. dibi Tambacounda. yow da nga maa bëgg a jaxase te mënoo maa jaxase yow yow yow yow yow yow Omar yow. yow Omar mënoo maa commentaire jaxase ndax sama dibee ko dàq. dibi Tamba lu mu neex neex neex sama dibee ko tàkk te su ma jëndee sama kilo ndawal bu ma ko te bu ma ko tegee dibir ko sama bopp waaw kon sama dibi dàq dibi maa la bàyyi nii nii nii nii ak ñoom Modou Diouf ak ñoom son yi bu ñoom ñëpp laa bàyyi sax. bu leen arrivé am naa ci benn cas xam ne moom bi mu liyee nee na moom dafa préféré divorce mais est-ce que divorce bi loolu mooy. mooy mooy mooy euh, moo dugg moo ñëw dugg koo ko ñàkk fay rakk ji. non non non man foofu il que aussi tamit parce que parce que aussi tamit man bu dee ni sa euh, sa borom kër laa bu ma demee ba man mënuma waxuma la di doxaani feneen mais sa rakk yow ji nga bokkal ma mën di ko doxaan. kooku moom. loolu dafa salté. loolu dafa salté daa warul nekk xam njëkk xam xam jabar xam rak loolu kay ma ñàkk ko yëg mais bu mu ko yëgee boobu fa la yem yàlla na ci yàlla musal yàlla na ci rakk waaye calson mm-hmm. mm-hmm. euh, nga jox ko jànk ne ko fóotal calson nga jox ko jànk suet ñëw nga jox ko jànk ni nii dafa am loo xam euh, yow sa euh, yi tamit daanaka ñu ci bari du ñu nekk ñu matir quoi xam nga ay xale la ñuy doon nga xale xam nga xale ni dafa yomb am na ay détails yoo xamante ni dafa sew daal ci li nga xam ne moom lay def maanaam même sax beneen saa yi même bu nangoo nanguwut c'est dafa am terrain yoo xam ni. waaw euh, nit waru ci euh, hmm. aventurier wu. Euh, parce que dafa am loo xamante ni boo ci aventurier wu. Mm-hmm. li nga war a njëkk a teg ci balance mooy lii nga ne. Mm. waa léegi lii surtout fois que ni. mu basculé yëf yi kii yaaykat léegi. dëgg la comprendre gis nga démb damay déglu benn fait divers koo xam ne benn sëriñ da daan jàngale. ci biir e kër gi xale bi xam disquette bi fi mu ne moom lay wër na dafa nekkoon France mhm. li ko waraloon mooy da ko doon jàngal heure ji moo ko daan génn ko demal demal demal demal demal su demee kooku da koy da koy def du naka sudul noonu te su ñëwee du mën a wax bu ne yaay du dem yaay ji dóor ko ni koy xoolal imaginer loolu yow sa doom du bu ñëwee di la wax di wax ak yow naan lii ak lii ak lii nga ne di ko as wax na ko ah wax bu bu ko waxee mu ne ko doo mu ne bu ko waxee mu ne ko amul mm. loolu c'est pas rafetul nit da ngay déglu amul moom war war xale moom bu a la mu wax léegi bu mu la wax nga ne teel teel di xool il faut di koy seetlu mm-hmm. gis na ah. jànk bi ci biir kër gi sax da nga koy seetlu mm-hmm. am na loo xam ne doo ko may mm-hmm. doo ko loo mayul loo loo dul may ah, jànk par exemple am na di ko bàyyi muy di ko bàyyi bay ko bàyyi bay kii kii ji xam nga waaw doo ko nangu dina même bu dul jël même jekk bi sax yow sër yooyu am na nuñ koy waxee pare woo am na nuñ koy def ko doo ko pare oh, jërëjëf xam def man moom fiir nga nag yow góor ñi góor ñi góor ñi seen ñett te seen ñett duñ suur seen ñett waaw du suur muy ban laaj nañu liir ah. <laughs> loolu il faut jigéen ñi maîtriser ko ci góor ñi bu suurul ñu di leen ko jox ba ngeen suur. waaw. waaw kay bu suurul fu ngeen ko bëggee. nu ngeen ko bëggee bu yeboo dégg nga li ñuy wax. Boubacar nga ca Tamba. ñu ngi reer ya ca Tamba. Tamba. man je cherche man yoo sama yoon yee je suis jalouse. aw ma ci kaf sax. kafu ma ci réew mais war nga indi benn jur góor yi reer yi. reer yi. waaw bàyyi seen soxna yi. waa reer yi. wala ngeen di kaay ñu ànd gunge ma. reer yi lan. maanaam bàyyi reer bi ca kër gi rek reer yi. ci lañ dëkk. reer mooy nag. Ah, mais booy génn nga dem reer doo ànd ak sa bor sa soxna. Ah, non en fait am ñoo xam ne dañuy dem dañuy dem reer yi maanaam dem reer lu neex bàyyi seen soxna ay sombeek yu genre côté ah, boobu wala. loolu reer yi reer comme daal sa copain wax la ni la kañ dem reeri mm, ah, ah déedéet sa copain wax la day soxna si doy ah ça existe. tem la de xale yi dañuy dañuy indi jëkkër jàmm dama ñoom ay rëb sa di reer. waaw nañ nañ nañ nañ waaw yaa ngi doog a dégg tem waaw léegi ñoom am na mos na maa dal nag. loo ko defoon. <laughs> mos na ñëw réer mu taw te mu dem jabar ji ne du ko ubbil mos na maa dal nag yaa ngi a ah, da ngeen a nekkoon yow di di dañoo réer yi muy taw muy taw mu dem jabar ji ne du ko ubbil bañ a bañ a ubbil di ko fa nga nekkoon fanaan saa gis billah tam <laughs> lay toog. su kaabay bu nekkoon thème bu waar waaye damay ñaaxaat góor ñi rek ñu de gën a gën a gën a defaraat taxawaay geeg ak toogin bi te xam ne góor euh, li ci tegu mooy kilifa te kilifa da ngay mot kilifa ci kàddu ci doxin ci jëfin ci lépp ak lu mën a nekk rek fexeel ba yow sa kër na nga ci am baat boo xam ne boo waxee kenn du wax xale bi dul dugg xale du la charmer xale du la solo di gàtt ba lay dugg ku ngi noonu